Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez les programmes de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation signée Cheikh Oussafo. Reparlons la situation de l'eau qui préoccupe beaucoup les Sénégalais depuis euh, quelques mois. Partout, les populations euh, continuent de crier le ras le à travers les artères de la capitale, dans d'autres localités. Par exemple, les parcelles Asseni, Yembel, Sikap Mbao, Diamogen, un peu partout les Sénégalais fustige euh, le comportement des autorités face à une telle euh, situation. Nous allons rendre à Ziguinchor, c'est le chaos, c'est le statu quo. Dans les hôpitaux, pas de médicaments, pas de matériel. Euh, les médecins ont décidé de paralyser le système sanitaire au niveau de Ziguinchor. C'est le même son de cloche qui règne à Kolda, imaginez-vous, dans une région du pays il n'y a pas de gynécologue, euh, le personnel euh, continue à fister le comportement du ministère de la Santé et des autorités euh, sanitaires. Restons le domaine de la santé, euh, c'est toujours l'émotion qui règne. Je le disais hier, euh, à Linguerre, deux nouveau-nés ont trouvé la mort. C'est compte tenu circuit électrique qui a tué ces bébés. une enquête a été ouverte par la gendarmerie et la police de Linguère. Parlons maintenant de la situation politique à propos des élections locales qui ont été reportées s'inédites. Euh, les partis politiques affichent leurs âmes. Je prends le parti euh, démocratique sénégalais euh, qui pointe doigt accusateur ses autorités pour retarder ce processus électoral et le dialogue politique. Le PLS demande très rapidement des élections locales transparentes et indépendante. Or, de chez nous, nous nous rendrons euh, au Nigeria, c'est toujours la croix et la bannière. Les djihadistes continuent de tuer les populations civiles. Plus de 32 personnes ont trouvé la mort, c'était au sud euh, du pays. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk si kàllaama Kocc Barma euh, dañuy doxantu fële ca Ziguinchor jamono ji suñu hôpitaux yi ñu nekk ay jiixi jaaxa amatul ay garab amatul jumtuwaay. médecin yi ñu ngi koy nen so hôpital Ziguinchor boo fa demee dafa gis benn garab ñoom nag bu ñu moytuwul ñu banque seen loxo fan yi di ñëw euh, si mbirum santé ba léegi ñu doxal fële ca Kolda amul benn gynécologue boo xam ne mooy assister jigéen ñi lu tudd si wàllum euh, accouchement euh, métti na lu mel ni Kolda région boobu amul benn gynécologue askan bi ñu ko koy ñamu guddi ak bëccëg. lañ dem ba fële ca Linguère nga xam ne mooy tout tànk yi fàttewoon fële ca Linguère coow laa ñu ne coowal ci biir réew mi. xam ne moom mooy ministère de la santé euh, ubbi benn enquête ak gendarmerie boobu nekk fële ci bërëb boobu mooy hôpital Magatte Lô li jëm si mbirum ndox xam ngeen ni jamono ji sagara ñuy xëy si gox goxaan yi euh, ñàkkum ndox ne na tas biir dëkk bi boo demee fële ci Parcelles Assainies jamono ngeen euh, fépp diwaan yooyu ñu ngi ñaw ñàkkum ndox boobu ñuy waxtaan ak autorités yi ñu mën a saafara mbir moomu lu mu gën a Euh, ñu ngi ko ci sélection euh, li jëm si élection locale yi élection gox xam nga ni ba léegi jëlaguñu benn dogal boo xam ni euh, si la ñu mën a sànni xob yi jëm si élection locale yooyu xam mooy parti démocratique sénégalais parti bu am doole lii njiit mooy nguur gi ñoom ba léegi ñoom ñu bëgg nas xala askan bi tout leen ay lëndëm bitim réew la ñu doxantu fële ci Nigéria xam ngeen ni firnde yaa ngi mooy fële bët gànnaaru far nañ fa bët dem Euh, fanweeri nit ak ñaar mooy woytu bi fële ca euh, Nigéria xibaar mbokk yi jàng jàng ba ëllëg incha allah